émotion bi moom du ma gis ak quoi. waaw. un match très très très très euh, beaucoup de stress quoi mais on save que xamoon nañ ne tamit vraiment nii rek la mën a deme parce que Égypte yàlla dafa juste tamit quoi parce que munoo ñëw di football ak équipe nga ne doo football cent vingt minutes nga lànk bañ a football premier match même chose mais euh, vraiment euh, jeu euh, di football était avec nous yàlla def na li nga xam ne moom lañ bëggoon donc ah, je pense que nag match équipe boo footballee ak moom deux fois. dem moom tiro bi deux fois mu dóor la boo ëllëgee booy football moom da nga génn nag football moom mu wan la nim la mën a parce que Sénégal montre qu'il était meilleur que l'Égypte euh, de tous les côtés quoi. Ismaïla Sarr ak ay occasion voilà loolu lu ñu war a liggéeyaat la mais on a du temps. fii Qatar 2022 am na ci temps parce que Ismaïla Sarr xam na ne aussi ci blessure la jógee Euh, je pense que condition physique bi xaw na des tuuti ak stress bi euh, pression bi ci stade bi mais vraiment l' essentiel a été fait loolu moo ci am solo je pense que euh, Cissé il a du temps pour liggéey ak attaque bi parce que efficacité bi vraiment des na ko parce que benn bii nga dugal ci ñaari match ci quatre match ci trois match finale Coupe d' Afrique aller en Égypte retour bi nga dugal ci benn bi war na liggéeyaat ci attaque bi quoi mais yàlla baax na ko man la Cheikh Samb. nekk fi États-Unis Cincinnati. d'accord gisee match bi tey nag. waaye kontaan rek kontaan rek war na lool lool nga billaay isaa ngi sax mënuma sax wax quoi. billaay dama kontaan mais nag tiitoon naa quoi tiitoon naa ndax naari duñ fubal naari yow dañoo yaakaar ne bu demee série rek dañuy dóor quoi loolu taxoon tamit ma tiit quoi. yee bi nag. non classement bi moom tay bi moom aara yoon quoi man comme ni ko bëgg quoi Cheikh Kouyaté quoi muy xaar quoi oui loolu laa bëggoon quoi billaahi. d'accord nga am pour suñu Lions yi. gannaaw ba ñu qualifié mais ah, góorgóorlu rek ñu góorgóorlu rek dañu ko jàpp nii foofu la quoi. waaw ah, xanaa kontaan parce que bon li ñu mën a wax mooy on satisfait parce que football la xëccoo la te xëccoo ku ne xalaat ngay wax peut-être que loolu moo dara xelam. mu def classement bi mu def on avait vu des changements qu'il devait faire mais quand même c'est pas mal on a gagné te loolu lañ bëggoon donc ñu ngi ñaan rek ñu gën a dolli euh, vivacité bi yëf di gën a neex kontaan nañ trop. Ismaïla Sarr ban message nga am pour lancer ko. waaw mu gën a vigilant ci euh, ci comportement am parce que donte jour bu ndaw te am na yoo xam ne il faut mu jël responsabilité parce que euh, day bokk ci futur cadre équipe bi donc il faut mu jël responsabilité am Euh, wala ni moom il est là quoi muy muy focus. man Ndang Mbengue laa tudd man ne ko Ndang Mbengue laa tudd nekk fii naat ah kontaan nag macha allah ñoo ngi dund waa Sénégal bu baax a baax kontaan nañ ci Sadio Mané xale yeeg ñëpp daal suñu xol sedd na macha allah kontaan nañ ci. waaw métti na nag métti woon na trop trop trop mais euh, suñu xol sedd na ñu mujjee macha allah daal moom ah. xanaa kontaan ci ñoo rek macha allah fi ñu teg seen tànk foofu la. bul ko teggi kontaan nañ macha allah jërëjëf yow tam kontaan nañ ci yow macha allah. jërë ngeen jëf yéen ñi doon seetaan Senego TV senego point com mu nekkoon seen spécial reportage ki leen doon amal di Seydina Aliou Ndiaye ci États-Unis Ohio Cincinnati pour Senego TV senego point com jërë ngeen jëf.